asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum New York City xew-xew bu mag ñu ne kañ la le septembre ak le 24 septembre dîner de gala bu mag a mag a mag ñu ngi invité ñëpp Gambien sénégalais yi bis bu mag ñu war cee ànd ak nag ay ndaanaan sama yaay Daba Sëy ak sama papa Salaam ak Meeru Njaay Gambien boobu ak man mii seen doom Géwal Mbaay nekk fi Amérique bis boobu nag single yu bees yi dina génn pas de danse nga xam si gëjoon naa waaye pas de danse yi génn di wax ñëpp incha allahu rabbi waa New York leen fa jox dig daje le 23 ak le 24 na ko ñëpp pare waa ñu war cee àndal nag waa CSD di guddi gu mag gars yi pare leen ko ndaxte sen doom géwél bu ñëwee di ngeen gis yeneen facette bongo yi dina ñëw. xam nga man mon fils va dans les meilleures écoles donc moi je suis allée dans les meilleures écoles étant allée dans les meilleures écoles là je connais les meilleures écoles mais Astou Samb xam nga tax mënoo jël chaise nga toog parce que toog da lay mais da nga dugg. da nga dugg si ku ragaloon da nga dugg si ku xam fi mu jëm da nga dugg si ku am détermination da nga dugg si jàmbar da nga dugg si king kong da nga dugg si baobab da nga dugg si éléphant da nga dugg si lion am the lion gis nga gaynde loolu rab àll yi bëri bëri bëri ku gis gaynde xàmmee gaynde asu sàmm sama kanam gi boo ko xool xam ni kanamu gaynde la xool ma gis nga gaynde bi si ama laayan xoolal forme gaynde laayan heureusement ba defuma blonde gis nga ma nii asu ama laayan ama yong laayan ama fresh laayan astu mënumaa rus say doom ndax yow yaa leen

ndax duma xawe sa sutura mais li nga def ci jaloore ci biir kër gi wan bàyyi laa leen li man yow ak jàmm jóob <coughs> jëmb jóob dëmm jóob laa dama wax jëmb dëmm ak dëmm Astou Samb xam nga yéen da ngeen yàq deru joolaa yi parce que jamono ji kuy wuteeg joolaa rek day naan non ñii dañoo bëri jalañ na na na mais non non non man maa wujjeeg Joola two times wujjee naa ak si Njaw Faal two times wujjee naa Joola si Njaw Faal wujjeeg Joola ci yow mi ne naa leen jik déggoo ma de ndax kaaw Mariama daf maa yee daf maa yee xam ma yeewee wujj du moroom du bëgg moroom wujjam <coughs> du bëgg moroom wujjam te rawatina ba ma seeg joolaa gis joolaay di def te nag taxul ma ne joolaa yëpp a parce que joolaa ñëpp melul ñu yéen ñaar ñii association de de de de de sama jëkkër du keneen. <laughs> joolaa yi man li ma xam ci ñoom man ay joolaa ñoo ma man ki ma jàngal école joolaa la euh, jaata la sant sama doom ki koy actuellement joolaa la sàmm la sant man maa bëgg joolaa ba bëgg diwtiir. bëgg na tutu bëgg man dama bëgg lépp si joolaay ba bëgg Ziguinchor man man su ma demee Ziguinchor mel ni ku nekk si àjjana bu ndaw kon yow yaa sikk si joolaay yi nii ñun ñeneen sikkee si seen xeet yow sa xeet yow yaa ci sikk yow Thioune ak Mariama Ndiaye Fall mais man maay seen garab nga Mariama Ndiaye Fall dafa jale sëy bi tas waaye jamono jii jamono jii bu démb doon tey daf may bàyyi ci kër ndax may jàmmam da nga dàq ba dàq sa jàmm toog di ko wër looloo daan Mariama Ndiaw Fall te kooku noonu moom Mariama moom tànk dofloowu ma ko mes ak samay live yii duma ko bàyyi moom sax tane na ndax xale la mën na soppeeku xam naa xelu xale moo ko jàppoon ak bëgg jëkkëram bu waye di boobu 14 kilos moom mën naa ko comprendre mais yow man mun naa comprendre Mariama Ndiaw Fall li ma def yëpp comprendre naa parce que bëgg na 14 kilos daf ko bëgg de 14 kilos moo ko université galère colo colodel yóbbu ko appartement comprendre d'appartements fi mu teg jëkkër que mais yow nga 52 ans ce 52 ans nga ça ma elle a 49 ans yow nga 52 ans 8 ans de plus que ma mère sama yaay ma ko 9 ans yow ça sama sama a 9 ans. nga. ñu ma traité sama yaay ba sama yaay fi mu ne sama yaay dafa réglé maam toog réglé dama koo dama koo dama koo traité mu toog yow nee naa bintu sa yoon nekkul ci affaire bi yow xamoo yëgoo tiinoo yow xamoo yëgoo tiinoo kenn mosu laa ci lenn mais Astou Samb xeex bi maag yow la du da ne yow dangaa am bois sacré te yow tàmm nga yàq ay nit xam nga tàmm nga ko moo tax sa yaay insuffisance rénale xam sa yaay dafa insuffisance rénale Astou Samb ta maman elle a une insuffisance rénale depuis 15 depuis cinq ans te xam nga dialyse dafa metti mooy wax da nga takk oor parce que kenn du la mën a dara si écran bi oto bu paan laa tuddee parce que sa moteur dama tut moteur jigéen <coughs> moteur jigéen mooy ree ndax ree yi ngay tourné sa kër borom kër ni nga koy def ak say ree tourner les reins tourner les reins lentement lentement rapidement rapidement rapidement rapidement rapidement rapidement baisser les reins baisser les reins baisser les reins def yow mënatoo tourner rapidement rapidement rapidement rapidement mënatoo tourner lentement lentement lentement mënatoo baisser les reins baisser les reins ak ciki ciki ak ciki ciki tiki tiki, on va tourner les reins, le web. C'est les riels des quartiers, les riels des le monotoko. A tiki tiki, a tiki tiki monotoko. Doucement, doucement, tourner les reins, tourner les reins. Pivotation, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, baisser les reins, baisser les reins. A tiki tiki monotoko. Assam, tuku tuku su la leeree boo ko jéem da ngay daan yow maay sa garab ayam yow comprimé comprimé yooyu ngeen naan pour calmer sa douleur rénale yi maa ngi nii maa ngi comprimé om bi <coughs> am tëgg la ci kuccu yóbbu la Côte d'Ivoire ndax xam naa dangaa bëgg ambiance mais mënutoo ambiance dama jëw <coughs> yow moom jëkkër tubaab nga am dama jiitu la ci xam naa ni tubaab tubaab rëy léwul dëgër léwul saf léwul yàggut yow dangaa éliminé tubaab réelé wut guddule wut safle ndax am naa jëkkër tubaab xam naa ne tubaab Biaram Bergane c'est un homme déggoo ma ne Yékini yow yaaram saaga la te loolu eh ñëw ci sama kër yow loolu sax jëmbu joo ndax ñuul nga ñaaw nga xam te ne la as as sàmb téléria des quartiers ci lu mon ak ci cuku cuku yooyu nu mu tudd ya cuku cuku xaam la cuku cuku ak cuku cuku ak cuku cuku téléria des quartiers cuku mu gën a ab siri fan ab siri jóg yooyu nu mu tudd yaa nu mu tudd wéy bi manti ko kikupika oli ah, mutudo nomutudo yewe xoolal ba ma fa gisatee ku ne bergaan même na nettali ma toj sa cottu ndey neewu naa duma saaga bu ma fa gisati nga ne bergaan da nga nettali ma toj sa cottu ndey capture sa téléphone dëgg sa ndey ba sa kër bergaan du seen morom dégg sama jëkkër am droit wax ma lu ko neex rawatina ma koy intima sama produit intima yi ne naan intima yi góor gu mu wax loowul amul ku ma gisati nga manqué respect sama jëkkër ma toj sa cottu ndey je te capture ma saaga sa ndey yóbbu la police ñu porte sa ndey plainte ici soit tu écoutes soit tu te gasses on n'insulte pas mon mari devant moi bande d'imbéciles yéen bëggoo leen su ma réglé fii viens encore jëkk bi nga def mu nettali fils de pute que sa bàyyi li muy wax sa ndey est-ce xam nga ko sarab nday lii c'est le c'est c'est sen c'est sen sen fils de pute arrêtez encore de de de d'insulter mon mari ici elle est folle d'accord t'ai bloqué. la folle t'a bloqué. va voir ailleurs s'il y a une autre femme que je parlais encore que Bernard va me je vais vous tuer. Regarde, c'est mon mari. On partage tout. Je lui ai raconté toute ma vie. Il m'a raconté sa vie. Pourquoi il ne va pas me raconter Pourquoi il ne va pas me raconter Il m'a tout raconté. Avec les intimes là, tous les hommes parlent. Bande de cons. Coupé décalé ivoirien. Tchoukou tchoukou, tchoukou tchoukou, tchoukou tchoukou, tchoukou tchoukou. Tournez les reins, tournez les reins, reins. reins. C'est les reins, reins, reins, reins, reins. Les reins. les reins. gis nga man damay saw gratuitement macha allah man damay saw te du ma fay ay machine nu may saw fayu ma machine ñu saw damay am dongo si douze bi na cor ca saw bu gudd cor ne puut saw laa ko def génn tax samay loxo parfum waaye yow doo saw ba ne puut parce que dañ lay branché machine ba jalis doo dañ lay branché machine pour nga saw te bu guddee yaa yaram yéenay bokk lal mais amul zangalema zangalema zangalema zangalema zangalema intima amul intima doo intima guddi mooy boo xoolee si sama tiroir yi rek mooy bi nekk si suuf télé bi tiroir yi nekk si suuf télé bi tukki wëkkil benn téléphone bu rëy rëy la nii yow assam guddi amul zangalema zangalema tourné leen ak tourné tourné tourné tourné tourné c'est deux heures amoo ko de te xoolal noo koy defee dangaa feebar di jalis sa reye day metti munoo ko mënul toog nu muy nu muy nu muy defee nii jifu mbaam yi noo koy defee te man mbaam laa xam nga Izangalema, Izangalema. Pet, unaoko dégg sama fer yi dégg nga fer yi dégg nga fer yi say fer nga nii di xaar yaaram ba tey dundee guma ko asamb asamb loolu ko defati nga ne da nga am ay jaleñ am bois sacré dama tout de suite maa ngi lay xaar tant que jaloñoo ma en direct ba Sénégalais gis mu tënk sama bopp bi du juux dof billaay xamoo cottu xamoo dara du ma saaga sax xamoo dara yóbbu ma tout de suite jaleñ maa ngi fi ba midi en direct laa bëgg dina sama bopp bi def nii yuuxu daw sama tukki wëkki baa ngi nii li laa jël périer tukki wëkki man lu ma wax dafa am ngi nii fii laa koy def yéeg si toit bi <laughs> ah. ana parachute bi sama parachute bi li laa jël yéeg si toit sama néeg daa am toit li bi jox benn bi yaaram yéeg si kaw jël beneen bi naan ko Allô, allô, allô, allô, ici le toit de la chambre, ici le toit de la chambre. Madame Bergane prépare l'atterrissage. Est-ce que la poussée est réglée? Puis, mon numéro 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Mon numéro 5 sur 5, 5 sur 5. Mon attention, attention. Le Boeing 2 vient de décoller. Mon numéro reçoit, reçoit, reçoit. Mon venu. Rek Nous, nuisette bi venus pour rek Mon ne mbàpp ci du da nga febe nga ne yow sa febe talo ko man nga tal doto ko c'est pas drôle sénégalais len c'est pas drôle c'est pas drôle kay c'est pas drôle pour moi man ma divorcer dugg ci mariage gu metti yalla may borom kër gu bax mu ne duma sey ngén len c'est pas drôle c'est pas drôle pour qui c'est pas drôle pour moi ou pour elle metti moma mayon yar yow ya yalla yow yow ya yalla yow ya yalla bay xam ki yaram ni ko dul yow yaay yow décidé yow kuy toog ak ku dul c'est pas de pour qui. ah kii froid 2000 kuko gisul deg nga ko sunu liggéey ni ngi aju ci lepp li nga xamne moy climatisation mo xamé installation la maintenance réparation remplacement wala électricité. bépp njàqare bu ngeen munti am ci sen cœur wala ci seen kay froid 2000 moma ci toy mun nga jokkoo ak ñun au 77 554 54 49. Nous mobile mobiles, ngeen munti ne ñu teew fajal sur la soxla climatisation avons installation la maintenance wala dépannage amul une marque bu ñu ci bu confier n'importe qui climatiseur nous sommes une équipe d'experts jeunes motivés et très dynamiques 3 2000 téléphone 77 554 54 49 nous sommes à la cité Djily Dakar vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes digitales